Mm-hmm. fi mu toog campé ci position am. en fait en réalité Ousmane Sonko moom dès le départ bi nga ko accusé mm-hmm. dafa wax complot waaw waaw dès dafa wax complot. sax si dàkk nag y a eu des audios y a eu euh, un supposé médical en face on a une Adji qui parle je veux un procès public suñ ko mënee def sa si télévision retransmettre en direct nga xam ne waxam boobu du waxam que y a toute une équipe derrière Adji bi ma si def maanaam ñaari camp yoo xam ne dañoo décider xeex jusqu'au bout di utiliser benn xale bu jigéen ñaari camp yoo xam ne dañoo décider xeex jusqu'au bout ku ne foog ne nag di nga si am ndam bu poussé Ousmane Sonko au suicide entre guillemets suicide lay nekk wala victoire pour moom ki vivra verra war nañu nag ñun en tant que acteur actrice politique fexe ba calmer les ardeurs sinon Sénégal day takk d'accord moi j'ai peur pour le Sénégal. d'accord mais bu ñu gisee. yow affaire viol bi ngay wax man gis naa beneen cas bu gën a garaaw. mais li ko indi lépp moo di le 2 février bi ñuy le dossier Mame Mbaye Niang moo gën a compliqué viol bi pourquoi viol bi dañ ko criminalisé waaw mais dossier bi diffamation la waaw diffamation la après mën na si jële sursis su amee sursis du présenté wu mm-hmm. xam nga la finalité des de batailles c'est de ne pas de c'est c'est la finalité des de batailles mm-hmm. c'est d'éviter, pour son coup, mmh. c'est d'éviter une condamnation pour pouvoir se présenter. Ouais. Pour l'autre camp, c'est une condamnation pour qu'il ne se présente pas. Mmh. Premier dossier bi rek mun na mun na mun na mun na mun na empêcher Sonko présenté wu. ça veut dire que ni ma gisee scénario bi même le deux y a de fortes chances Sonko bañ a dem présenté d'accord le deux bii yéen yéen a gis viol bi xam nga amagu leen date. nga xam ne au moins benn date bu mooy le deux ça veut dire que xeex bi du viol bi de du datu viol bi nga xam ne kenn xamugu ko de xeex bi di ñëw c'est le deux lii de ay ay ay révélation la c'est pas des révélations c'est une bonne lecture non en fait cette lecture là ngay wax c'est une bonne lecture que ni xeex bi c'est le deux wala yéen da ngeen foog ne xeex bi bés jour bi ko jour biñ ko non ñëpp jàpp ni ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko foofu la xeex bi commencé alors que yaa ngi wax ni le deux convocation pour plainte Mame Mbaye Niang bi la xeex bi di commencé xeex bi léegi mu commencé ñu ma ko gisee nii affaire du caaxaan de mais lu ciy pexe ah même yow sa li siy pexe kay may lam leen wax rek c'est un dossier très compliqué parce que bi diffamation la Mame Mbaye Niang nee na na ko jox preuve n'est-ce pas mais rapport rapport rapport bi nga xam ni moo épinglé woon je maîtrise pas ce dossier correctement voilà mais mais rapport bi ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñëpp ñu ngi koy gis te Mame Mbaye Niang a été épinglé par un de contrôle ce sont tes dires en tout cas le deux daal dina métti xeex bi du la du si viol bi de xeex bi de deux la te tey la defe naa tey la vingt vingt quatre. Mhm, tey la vingt quatre oui. c'est même pas une semaine. alors mais finalité bi mooy empêcher Ousmane Sonko mu nekk candidat 2024 voilà. xam nga mënuñu ne finalité bi ñaar nit ñooy xeex. Mhm. ça tombé sur un ministre et Sonko. Mhm. xam nga daan nekk ku dëgër bopp. boo xam ne su màttee day dagg. ni ma ko gisee nii. nii nu ma ko bu baax nag. te day dem jusqu'au bout dafa ne da ko da ko fekk si si xeexam xalaatuñu woon kii far mu jox may leen may leen xeex bi mhm. donc c'est ça sera un peu compliqué quand même pour Sonko mais xeex bi moom le deux la ñu ma ko jàngatee nii mhm. xeex bi jege si na de mais normalement Sonko bee dossier bee moom ak Mame Mbaye Niang la diffamation la normalement dafa war a dem wuy ji waaw mais su fekkee su gagné amul problème mais su perte il va pas plus se présenter est-ce qu'il va prendre ce risque ñi dañoo xiif xeex. ñan Sonko wala. Sonko yi dañoo xiif xeex nguur bi tamit xiif xeex dañuy bëri de ñi dañoo xiif xeex ku nekk yaa ngi bo bo kii bombé le torse. wala yow gisu loolu. gis naa loolu ndax gis naa tey sax Abdoul Abdoul Abdoul Mbow mu ne eh, ñu ngi activer seen unité de vigilance opérationnelle ngir ñu investir les terrains mais bu ñu demee ba ñi nga xamee ni président Macky Sall ñu gis ko ak fi mu jugee woon 2012 li xewoon 2012 ay bakkan tuuru ci moom vigilance am jamono ji est-ce que mayu ko tey moom aussi mu jéem a reculer jéem a calmer ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay camp pour au moins que le Sénégal nekk nekk dans euh, nekk en sécurité en xam nga ñoom am nañu seen service de renseignement. Mhm. ñun amuñu service de renseignement ñun dañu am suñu bët di xool. Mhm. ñu ñu gis ñaari camp yi mhm. xiifante ku ne da nga xiif sa benn camp bi nag beaucoup de jeunes la am si côté camp wu opposition bi. ñoo gën a mën a xeex camp wu jeune pouvoir bi. gis nañ leen événement marché yi gis ñu ci kenn. doo gis kenn xanaa ñu ñu financé fay leen pour ñu yëngal dëkk bi. donc kon euh, quand opposition bi moo ci ëpp chance pour gañee komba bi. Hmm? quand opposition bi moo ëpp pour gagner combat bi. waxuma quand opposition moo ëpp chance pour gagner combat bi mais xeex day am xeex su amee bakkan day rot. balaa ngay wax gagné gagné gañe entre temps bakkan rot na te ñun bëgguñu Sénégal ay bakkan di rot. mais ban position la ci armée war a am wala wa ñi euh, yor kaaraange ak réew mi ban position lañ ci war a am. xanaa dégg loolu la wax sànq que ay tapet lañu am nay guerrier mais ñu si tapet ñu bëri et que su métti dëgg dëgg dëgg dëgg war na xoolaat rapidement entourage am balaa ñu xëy def de hmm. xaaral wax lii soo mettee dëgg. Mhm. gars yi dañuy làqatu du ñuy génn waaw ñi ñuy fay nag mhm. ñooy investir le terrain une résistance coûte cher des deux côtés su nekkee côté pouvoir mooy oto yi gendarme yeeg policier yeeg loolu xam nga c'est de l'argent mhm. c'est des voitures coûtent cher c'est du carburant c'est des hommes qui passent la journée dehors qu'il faut entretenir durant la journée ou bien des jours si c'est du côté de, de, de, de la résistance, mmh. c'est une résistance humaine qu'il faut entretenir, mmh. qui coûte cher. Mmh. <laughs>